DJ Junior, carapit.com, dédicace à vous. Ils seront là dans un instant. Junior, t'as beau venir, t'as animé quoi. T'as beau venir, tu vas. Tu vas animer avec moi, ok C'est l'ambiance du camp, il n'y a pas de balak aujourd'hui. La balak, c'est les mardis, mercredis. léegi samedi si leen di wax. mais Ndiak anima kii taximaan yi nee nañ déglu wu ñu ko. waaw ma wax ak yow parce er, que anima taximaan yi nee nañ fi mu toll nii soo soo yi ngeen leen teg nii neexu leen quoi léegi da nga leen jox jour nga xamante ne moom ngay teg mbalax yu saf-saf yi comme ça ñu mën ko déglu ah ok ah. le cadre merci à toi. Merci également à notre ami Taxiban notre ami van qui est à l'écoute. Hein? Man, notre lieu C'est comment le nom Mortiama. Voilà par de dieux <laughs> En tout cas, merci à toi. Le show du week-end, je vous rappelle que ça se passe comme tous les samedis, comme tous les samedis sur votre radio Dakar FM 94.5, 94.5 comme on dit. Et c'est l'ambiance week-end, comme tous les samedis, 10h15, 13h. Check, check. Tout le monde Check, check.

buat la may puso kami Bonsoir chers amis téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro. Mon animateur préféré revient en force cette fois-ci avec euh, Ndiagbot de Dakar FM 94.5. tey nag euh, Ba ku ko xamul émission bi du yomb spéciale émission avec Ndiak Ba Ndiak

andi cokoropole à la pimpi andi pere mere waay andi dafay neex bu noppi teg ci eh, lool déedéet gaay xam nga da nga style français bi xam nga dañuy foog ne lii nga mën a non mais gars yi dañuy jum après da ñuy jox mbalax bi bien sûr day neex amul problème <laughs> ok Amatou Ndiack dañ lay ah. bàyyi nga présenté wu parce que am na ñoo xamante ni bi ñi ngi dégg Ndiack Ba Ndiack Ba Ndiack Ba nga wax leen yow yaay kan kan mooy Ndiack ok bon Ndiack Ba c'est juste un jeune comme tous les jeunes sénégalais un jeune euh, qui est né ici à Dakar. bon boo xam ne fii Dakar jàngee Dakar fii la màggee. sama sama métier nag franchement animation bi Michael Souma ma inspiré quoi. un gars comme Michael Souma ma inspiré depuis tant Boy, moom la doon déglu tant Sono Mondial. temps Jazz FM affaire yoy. xam nga ma inspiré finalement ma dem ba def radio, nekk ci ay loxom tey uh-huh. happiness quoi. ok bon bon bu ñu sa carrière animation fan euh, année nga commencé animer? lan moo la ci dugal. parce que gars yi léegi dañuy jékki-jékki rek tëb rek commencé animé. waaw waaw c'est vrai bon man nag franchement maa ngi def maa ngi commencé def animation en fait j'ai commencé par le rap ah dama commencé musique musique laa doon def. j'étais rappeur musique hein dama doon rap waaye bu ma rappeloo yow xatal naa ko. dama doon rap temps gaane gaane tëj nga Kër Masara. waaw waaw dama doon rap temps temps temps ouverture foyer yi. temps yii maa ngi dégg côté yooyu. ouverture foyer yi j'étais rappeur. bon j'ai fait aussi musique. acoustique mais yàgguma ci quoi. maanaam sama baat neexul. Hmm. jëm naa ko forcer mais doxul quoi. moo tax nga arrêté après ma arrêté continuer sama étude après ci laa opté pour def animation. Euh, j'ai commencé par la radio Nostalgie. la Non non non, il y avait une émission qui s'appelait Radio Pirate. Euh, une émission qui testait qui pistait les nouveaux talents d'animateurs. OK. Et moi, déggoo bande annonce et tout, bon mais inscrire, Big John mon dirigeant émission bi. Bon mon bloc et tout, finalement tu l'as gagné à faire. affaire quoi, mais c'est grâce aussi à Michael parce que je l'écoutais hein, bien. Donc euh, fa Diar, Diar, Nostalgie, jóge Nostalgie, RMD. ak euh, grand Ngari. Mhm. Pape Ngari Cissé. Pape Ngari Cissé. voilà ma jógee RMD ci laa ñëw rajo Sénégal international ba mhm. RSI. RSI. ba ma def benn trois mois stage ah trois mois stage yu métti yu tar. Mhm. temps yooyu noonu xam nga comme que bon ci laa pare ginnaaw bu ma defee trois mois stage euh, à RSI rajo Sénégal international muy RTS. sama stage jeex gars yi bàyyi ma dem quoi. ma ne kon man prouvé wu ma xam naa moo tax gars yi soxla ñu ma man tëdd sama kër. boobu xamoon dara benn xamoon dara sax mais peut être. <laughs> non boo xamoon dara gars yi xamoon naa dara parce que peut être saturé quoi tu as vu. ba pare aussi gars yi man mënu ma woon nekk animateur boo xamante ne c'est vrai que bëgg naa li may def waaye danga may fay quoi man du ma animateur boo xamante ne damay ñëw franchement nga may. franchement may liggéey ci kaw zéro quoi ndax wax ci rajo quoi nit ñi di ma dëgg. Hmm, ndax avoir des copines ou les yu noonu quoi. c'était mon métier quoi dama ko opté woon daf ko métier. parce que daf ma jaraloon ma bàyyi sama jàng et tout. Hmm. donc mon mu stage gagne yi ñu ne ma ok toogal dina la woo ma toog ceene teewul maa ngi def samay demande feneen. ci laa toog benn instant Michael Souma woo ma téléphone sama téléphone portable. allô c'est Ndiak Ba ma ne ko oui moi mon ne ma sëñ Michael Souma ma ne grand ça va mon yooyu mu ne ma waaw au fait dama bëggoon nga ñëw Dakar FM quoi est ce que tu est ce que tu peux commencer demain fekk vendredi dama woo. Mhm. ma ne ko ah bon mu ne ma c'est toi qui anime tous les samedis maintenant 10h15 12h. Euh, ma ne ok avec plaisir waaw ci dougué duggee ci rajo bi et tout commencé Dakar FM c'était en 2007 si je me trompe pas 2007 la yaakaar naa. 2007 boobu ba tey maa ngi ah. ok donc. Euh, non noonu la dikkee quoi. bon sànq ci allah ma am fi yeneen xewal macha allah léegi agent là yalla yokk agent là fi donc euh, vraiment macha allah. yàlla yokk ba pare aussi bokk na ci RTS déjà parce que maa ngi def benn émission à la télé et tout muy Musicolor gars yi xam nañ ko. ok musique Musicolor dinañ fi ñëw après. Uh-huh. ban façon musique ngeen don comme genre bi. dama ñëw nice dama ñëw présenté wu comme ça Cheikhou jox ma son tegal ma son ma def sama sélection et tout. Mm-hmm. il a mis le son et tout après jox ma sama may ma ne ko jox ma micro et tout comment commencé commencé ça. Bonjour à tous, bienvenue sur la radio municipale de Dakar. Je suis Diagba pour vous servir euh, le meilleur de la musique. Nous sommes ensemble euh, juste pour 20 euh, minutes de bonne animation, l'ambiance musicale sur votre radio. On va commencer avec et Ekon, le jeune qui fait la fierté de tous les Sénégalais. Son vrai nom c'est Alioune Cham. Il va nous chanter quoi Fatuna titre quoi, J'en ai. apprécié sama yaram gën a temps, may dur, nice. après ma qualifié au final hein. ah, mais après émission bi amoon suite quoi. ci laa xam genre émission yi daf may tardé parce que man je peux devenir quelqu'un quoi ci côté animation. Mhm. ci laa bàyyi lépp quoi. y avait un de mes grands qui s'appelle Babacar Mbaye moo ma ne ñëwal RTS ci laa déposé demande def RSI taf ba léegi maa ngi quoi macha allah tey ñaanu ma yàlla parce que ma proposition yu bari machallah. allah. rajo yu gën a mag ñuy déglu tey tey à Dakar. du ma quoi bi ñuy démarrer seen programme woo nañ ma donc euh, gis ma fa sama intérêt quoi sama avantage ak sécurité aussi donc je préfère rester ici. Hana <laughs> yéen xanaa xanaa xanaa Wa Wa woo ma Wa waa wa RFI wala wala MTV su ma woo moom RTS quoi mais fekkee fi Sénégal rek mon franchement du ma dem xanaa à condition nga fay ma. mais mais Ndiak Ndiak. non am ñu ko waxoon te dem nañ de. non non ñi demoon yëpp dañu ñëwaat <laughs> mais mais mais saa waay ñu duggoon RTS dem fi à set xawma ma. Euh. gars yi ñu ngi RTS. <laughs> man ko fi yóbbu ma de ay kaay ma fay la huit cent mille ak auto genre yooyu noonu man samay sécurité laay xool sama tu as vu moo tax mun ma opté resté fii quoi mais bëgg a siiw rek bëgg tur actuellement maa ngi feneen. oui c'est vrai te gars yi dëgg foofu flamme. Mhm. mais man je préfère rester ici quoi. ah, ah, ah tu préfères rester ah, ici. su ma amee nag leneen leer la. moo gën loo moo gën moo gën fii fekk leer la à base de. affaire yu leer quoi fu leer lañ koy teg nga dem quoi waaw ah, nga dem ku nekk tamit da nga ñaan yàlla da nga ñaan yàlla avancé quoi non animateur dañoo gaaw si dem quoi da ngay man dem naa si animateur mu ne ma non fii du ma fi jóge lii lii kër rëpp deux jours ñu ne ma dem na damaa yéemu ku nekk da nga ñaan yàlla avancé quoi franchement mais ñiy dem xëy na fu ñu nekk dañ leen gënalul quoi tu as

Le show du week-end se poursuit tranquillement. Je vous rappelle que vous écoutez Dakar FM 94.5 dans le show du week-end. Je suis Njakba, vous le savez déjà. C'est l'émission la plus fun de toute la bande FM, l'émission la plus écoutée par la jeunesse. À l'instant, juste après la, juste après la séquence euh, Dance Hall. Voici donc la séquence Pop Dance avec euh, l'ambiance week-end C'est votre radio. Dédicace à Bijou depuis les Almadies. Ok, mm-hmm. Ok, euh, musique color. Ah. Musique color. Expliquez-nous, donne-moi musique color bon musique alors concept bi euh, avant tout émission bi dama fan la jógee quoi. ok am na nous koy nuyu au passage muy euh, euh, d'ailleurs ngi koy nuyu au passage ah muy père Amadou Fall vraiment un réalisateur bu mag ci RTS d'ailleurs ça sax dem na retraite moom on moo waxoon dañuy soxla émission variété. te man maa lañ ci doy pour euh, présenter que et tout parce que daañu may déglu fii à la radio et tout. ba après mon mu émission ki le bëggoon parce que je pas il paraît que directeur général bu RTI télévision Côte d'Ivoire dañuy se nee na dañuy seetaan RTS foofu lu bari ci Côte d'Ivoire mais ñoom dañu bëgg seen musique di jàll quoi suñu télé et tout ñu ne naa def émission typiquement coupé décalé après ci la ma beneen réalisateur woo aussi muy grand bu baax muy Pape Si moom tamit il m'a dit que non defal émission Kabo ma ne comme que loolu yow nee nga ma coupé décalé kii ne ma Kabo baal ma créé émission boo xamante ne par exemple gars yi amuñu habitude di ko def quoi coloré ko def variété def toutes les musiques ñëpp gis seen bopp junior gis boppam Mbengue gis boppam kii bëgg coupé décalé gis boppam kii bëgg dance floor gis boppam tu as vu ci laa proposer un concept musicolore l'émission qui propose toutes les couleurs musicales me crée aussi une rubrique dedans il y a une rubrique qui s'appelle l'invité euh, là où je reçois des artistes il y a aussi pas mal d'artistes qui sont passés dans cette rubrique euh, change émission aussi mooy euh, foofu rappeur de de jaar parce que rap rap c'est mbalaxmaan de fa jaar qui def acoustique de fa jaar qui def folk de fa coupé décalé Jogi Abidjan nous fi amul invité man mun naa recevoir émission parce que parce que parce que damay coupé décalé quoi dina concept bi la quoi musicolore Sénégal parce que ñu bëri junior man émission def mhm. ki que euh, euh, FM wala Yaboy TV suis man émission R&B la def mhm. tu as vu Sénégal mhm. mais man dama opté pour des variétés musicales toutes les musiques musique bo beug rek mu ngi ci biir musicolore. kon musique color mo ëmb musique yëpp daal. mo ëmb musique yëpp. Il y a aussi am na yeneen saf safal ci biir aussi quoi muy yeneen rubrique yi comme choisir ton artiste. Mhm. y a aussi l'invité ak découverte ak yeneen quoi. Mhm. tu as vu. ok euh, mhm. légui animation. ñu ñëwaat animation bi tuuti. parce que Ndiak gis na am nga ay auditeurs macha allah am nga ay auditrice bon yow noo dundee ak say pour l'instant auditrices yi. parce que lañ graw de. da ngay ñëw gis junior. Voilà, ma begitu malah liang-liang li. ah nu mu No, non non non man moom franchement auditrice yi auditrice wala Eh, auditrice Eh, wax de madame maa ngi lay seetaan nag waxal loo xam ne. auditrice bon man moom franchement auditrice yi sama xarit lañu quoi. madame Ba dulu. ko. mais ya, madame kamu yow kamu gayo, yow man ah kamu nga yow auditrice yi duñ dara samay xarit lañu à part xarit à part bi man mooy loolu quoi. mais dégg gars yi man nag même bu dul rajo sax kay ma wax benn affaire même bu dul rajo sax man euh, je te une chose euh, man nag franchement dama am jigéen quoi xëy yàlla koy def man mu nekkee collège gars yi dañu ma sonal quoi. Mhm. xam nga du ma dara nag quoi aw ma bi temps mais dama <laughs> gel franchement dañ sonal ma quoi mais pas rajo rajo bi nag ñoo gën ko yokk télé bi nag macha allah ñoo gën ko yokk mais man franchement damay négocier bu gën ci am na ñoo xamante ne aussi ñoom faale wuñ la dañ lay bëgg ndax ni ngay def mhm. faale wuñu jàll ba boo nekkoon sa MTV yëpp dunduñu la ñoom da ngay def moo leen neex pare nañ ci dañuy jéem a am ak relation forcé ko quoi pour rek juste damay gën nekk jàll ba wala damay gën nekk Boubacar Diallo TFM wala loolu moo leen neex quoi ñoom tu vois bi mhm. man vraiment man tal mu loolu quoi dama joxe dépense mhm. damay fay courant damay fay ndox. Ah, te talu ma ah. ah, ci yokk benen frère quoi <laughs> franchement. père dafa mi nga de talu ma ci yokk benen frère mais est-ce que des fois. maanaam du mer nga ñëw mu xaw ak non du mer elle est compréhensive quoi parce que mom souvent. des fois na mu gis SMS comme gel da gis gel boo xam ne xamoo ko sax mu envoyé le message ne salut chérie comment tu vas na mën a. Hmm. fekk xamoo ko auditrice kese la wala salut chou tu loo ne. Hmm. mais finalement commencement bi daanaka créé ay tension man que je te jure ñi xaw ma leen sax ma qui déjà en amuturam numéro question affiche mais je la connais même pas mais après de bu mu demee ba ci biir am ci ay preuves comme quoi man franchement les mots wax dëgg la maintenant elle a compris quoi. ah, elle doit comprendre parce que elle, bi moo ko laaj quoi milieu bi moo ko donc et puis xaw nañu yàgg quoi mag moom maman, wax béninoise la quoi. papa mm. mooy béninois yaayam pël la. Mm. donc moom voilà quoi. après comprendre le showbiz bi quoi. c'est le milieu. ok ok uh-huh. ok bon léegi Ndiack euh, bu ñu ñëwaatee si question. thème hmm? d'actualité hmm? Hmm? parce que. gis nañu léegi animateurs yi ñu si bari. dañ leen jox dañ leen mbuxum daal li naan mbuxum kaaj. mbuxum pour ñu jàll délicat. mbuxum non auditeurs yi ñoo leen mbuxum jox crédit allo njaak waaw même ma crédit 500 francs. non non non non la bëri dañ ma yónnee crédit. man gis naa franchement man gis nga après nga wax après nga posé la question bi yow junior nga ne ma yow foo ko gisee ak kan la mais man dama lay man personnellement. DJ bi xam na boppam ah bon DJ ana sa copain la yéen a bokk mbuus. <laughs> non yow man dama je suis l'ami des DJ. est-ce que du yow animateur yëpp samay gars lañ fu ne jaar naa fa. est-ce que du yow parce que gannaaw sànq yor sa téléphone naan eh, ah, ah. il paraît que c'est toi ah Junior c'est toi. mais je te dis une chose ah man moom des fois ma jékki-jékki sama téléphone sonné crédit ma xool ma fekk ci crédit 3000 des fois 5000 des fois 1000 francs jëm kaw jékki-jékki appel alon ah, jak ba jëm nga crédit bi man na la yow la kan nga dama ma man la diw man la ah pourquoi nga envoyé le crédit nga dama ma non ah, garaawul sama xarit nga ya may bégal ñu lay bégee sama sañu ma jox lu upp crédit mhm mané ko merci mu raccroché ya, mais mosuma jël sama téléphone vraiment di ñaan nit xana ki ma xam comme comme comme copain comme junior yo ya, ma xam la nga nek sama gaal tak du hmm. affaire animation ci radio bi la ñu bëggalante affaire bi radio bi la radio bi radio bi la quoi radio bi ngam ngay mo wala ñu bëggé na sama mel la dédicace ko contane kon yow da ba paré baax na quoi à part ça bo amé nak ay eh, soirée bo xam da nga ko organiser wala collectif ngeen organiser ben soirée genre yo ngeen bëgguma animer animé leen ko wala ma defal leen publicité wala genre yo hmm. mun na ci japp ci jàpp bëgg organiser réunion tamit ngeen wo ma mun naa ñëw féké amna temps man ñu bari dañu ñëw di bëgg créer ay njàkk family ay genre yooyu noonu quoi mais man franchement c' est le cas de Yacine benn gel bu nekk fi Medina ñëw na fi ànd ak ay copinam benn agence la liggéeyee bu defal ay t-shirt et tout mu ne man dañuy defal ay t-shirt ak Ndiack Ba benn fan club bi et tout mais dama ko ne franchement man mu ngi mën a nëbb quoi temps bi la amul quoi ak garaawul quoi happiness nañu béggee ci rajo bi rek quoi bàyyil ma ne damay dédicace ñuy béggee quoi genre yooyu xam nga. liñ doon wax nag ñëw na. ah ma doon wax. liñ <laughs> <laughs> dama da waxtaan ak benn femme njaag ba laaj mu ne ma njaag ak bëri tiitar ma dem ci keneen ak moom mu ne ma njaag bëri tiitar ah waaw njaag moom tiitar yi kon fu mu ko jëlee kala ah kala non kooku moom du ma ah, njaag bëri tiitar bi naa sama njaag bëri bëri tiitar non yow moom bëri woo tiitar mais gars yi ni ñuy gisee ah, xam nga ñaar mën kenn te ñett di bëri xam nga caractère rek boo amee caractère ak tiitar bokkul quoi xam nga am na fooy toll Facebook bi sax maa ngi sa benn kii di commentaire njaag bëri tiitar. kooku sama cousin la quoi. <laughs> kon leer naa sama cousin bu nekk États-Unis loolu moom garaawul quoi. Uh-huh. ñoom moom ay borom baax lañu quoi. ñoom uh-huh. am loolu ñoom Seydi samay cousin samay jarbaat quoi. ko nekk. des fois sama mm-hmm. jabar ne ma. bébé Eva sama doom bi coow la jëlee bari titre ok Ndiak euh, ñëw nañ fi tey bi fekk la ngay teg arène bi mm-hmm. ak yeneen son quoi uh-huh. te gis nañ yeneen jours mbalax ngay gën a yëgu dama laa déglu ma ne kii mbalax rek lay def uh-huh. ma ñëw arène bi ne kii arène bi rek lay def parce que uh-huh. Uh-huh. concept émission mbalax bi ak arène bi du benn mbalax bi dama laa dégg nga ngéwéle di si wax ay olof yoo xamante ne bii maa la day taali may ñu si tuuti bon mbalax yi déjà avant ma lay may euh, c'est tous les mardis mercredi 19h30 21h30 laa fi nekk loolu émission baa ngi tudd Baneex Baneex xam Dakar FM ñu koy dakkantele la rajo Bonheur mhm. Bonheur mooy Baneex mhm. ma ñëw duppee émission bi Baneex mhm mooy def mbalax bu sap sap des fois ma def retro et tout genre yooyu non quoi samedi tamit dama ñëw changer parce que ambiance weekend warul nekk mbalax quoi pour man ambiance weekend ambiance samedi soir genre yooyu da ngay déjà yaa ngi lancé wu ci ambiance weekend bi début weekend bi mais pourquoi gay ngéwéle ngéwéle ci mbalax yi <laughs> ay taas mbaax ay salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum àdduna wërngal képp jaajëfal leen di kontaan ci yéen ci taamu bi ngeen taamu la 94.5 maanaam juróom-ñeent fukk ak ñeent bu doon jàpp dafay neex bu ndoppi teg ci lool dafay cokoropole à la pimpi waaye tamit dafay peremere waay genre yooyu xam nga <laughs> ay bakk nga njaag titi ñëw jingal bakk nga njaag day xam nga ak yeneen saf-safal yi ci biir genre yooyu uh-huh. happiness quoi am animateurs yu bëri yoo xam ne tey mënuñu joxee tey arène bi tey mënuñu ko animé mbalax man loolu a def variété da war a suñu yóbbu ci arène bi wala dancehall man damay def réveil matinal yaa ngi wax ay arène bi kese samedi matin temps yi 8 heures 10 heures hmm. man ma yee matin bonheur l' émission bi tudd ay solo française damay waxee maa ngi posé wu yee gars yi show bu tànga jër hmm. 10 heures et quart mu monté pression bi sama DJ waroon nañu fi nekk ci tey mais tey ñëw ñu quoi. ok fi la ñuy teg seen pitch di mixé en live et tout. ñu def ambiance weekend mardi mercredi yi nga di ñibbi nekk ci bus yi ñii di nekk ci taxi yi nekk seen oto di ñibbi genre yooyu noonu nga leen di animel mbalax genre yooyu quoi ba ñu yegg seen kër concept bi noonu la demee quoi. Ndiack. waaw. carrière animation. <laughs> sa carrière animation. waaw ah. nettali ñu. <coughs> affaire bu reetaan la boo xamante ne bii. dal na la ci arrière sa carrière animation. Oh, est ce que fàtte ko sa junior man damay gaaw a plané sama xel bi. xoolal DJ yi fi jaar yëpp rey nañu yow nag yaa ñu war a dogali. ah mais damay bañ a tooñ nit loolu ci ci benn auditrice la dama koy bañ tooñ ko c'est fa. boobu amaguma soxna nag quoi dafa am benn auditrice boo xamante ne vraiment dafa ma doon woo. Mhm.

des fois mu ne ma dama demoon ci garage bi récupérer sama véhicule affaire yooyu noonu temps yi benn katkat laay waxaale sa genre bi genre yooyu noonu quoi mais xaw ma c'est vrai xaw ba muy ñëw fii benn jour oto la garé quoi man mais man dama ko foogoon benn xale bu rafet comprendre ma naan waaw ba pare tur bi aussi tur bi dafa neex tur bi dafa neex ma ne xale bi rafet xale bi war na rafet de ki dafa set rafet mais imagine déjà nu mu mel quoi ma créé benn Beyoncé tak ma ne xale bi nii la war a mel par mais jublu ma ci woon pour nobante ak moom genre yooyu quoi mais nit ku nekk bu lay woo di koy jox benn kanam quoi dañ koy jox benn image. comme comme comme la mel genre yooyu noonu quoi yaa ngi <laughs> ma leeral leeral mais xale bi bu mu ñëwee fii c'était en 2008 je crois mais xale bi dafa ñëw fii gendarme yi am na ku lay set man leen bàyyi leen ku ma yëg quoi mais bu mu yëgee ba mu tijji bunt xale bi nii la mel. <laughs> elle était <laughs> mané ko ni nga mujjee mélange yaa nekk ne mu ne maa nekk je suis là ravi de faire ta connaissance enchanté boobu ñu ngi dëggan depuis un mois noonu mu fexe bëgg si j'étais parti à Paris dëmb laa ñëw affaire yo genre yooyu ma ah mais après bu mu ko mayee départ mu dem <laughs> des fois mu woo ma je vous t'invite chez moi mané ne dama bari kees man ay kër yi mënu ma seet quoi mu je j'habite seul mané ne ko ngir yàlla bàyyi loolu rek <laughs> mané ka sama xarit bu jigéen bi euh. finalement ma la xam la wowe sama xarit bu jigéen bi su ma woowee téléphone su may décroché eh sama xarit bu jigéen bi noo def <laughs> genre yooyu xam nga affaire yooyu mu ne ma ah léegi sama xarit nga may wax léegi ma ne ko mais sama xarit nga yow <laughs> sama nga sama kii ma sister genre yooyu man daal sama animateur yi ko gën a saf sax mais vraiment léegi mais ah, léegi sama gain la quoi nekkatul Sénégal léegi elle a voyagé mais sama partenaire la quoi mais vraiment loolu daal xawoon na ma marqué parce que retard naa ko nag bu ma demee ba mu ñibbi lu ma ko foogee woon la quoi souvent nag dama la junior yaa ngi ci rajo maa ci rajo mhm. mais gis nga auditrice yu bari kulo ci plus neex baat la gën ñaaw kulo ci allo comment tu vas je voulais faire dédicace euh, man may sama frangin bi kii bu ko gisee nii la mel <laughs> leer la wax ça je te dis ah dee la caamaas xam li may wax Boubacar Diallo dire. TFM yow xam li may wax yow xam li may wax <laughs> Pape Cheikh Diallo Cheikh Diallo wax nee na deneen dégg baat yu neex rek moom wax na ko benn jour maa ngi mu ko wax moom xam naa ñoo bokk histoire nag moom quoi. Mm-hmm. loolu xam naa da koo mos a xam nga ci dara sax yow. xam naa ci dara. <laughs>